di abonné mbokki internet Mak yi Sénégal nuyu nañ leen amaat euh, mbégte àndaat ak yéen comme niñ koy amalee bés bu jot rek euh, ñu fas yéene na dégtal xibaar yi li si gën a fës tey dañ koy rek euh, daal di tàmbalee ak tiis bi nga xamante ni moom la rek suñu mbokk murid yi daal di fanaanoo di ki démb mu ni rek génnub àdduna ki nga xamante ni rek moo di Serigne Cheikh jëm Fall moom mi nga xamante ni moo fi nekkoon rek xalif général des Baye Fall moom nag daal di génn àdduna ndikki rek démb ci guddi moom moom moomee sax nga xamante ni moo nekkoon sixième xalif général xalif général des Baye Fall daal nay eh, génn àdduna ndiki démb moom nga xamante ni eh, nekkoon na fi sax daanaka atub 2006 eh, ba tey gannaaw rek ba nga xamante ni doon na remplacé wala sax ut woon nag ki nga xamante ni rek moo di Serigne Modou Aminata Fall moom nag ki nga xamante ni moo di Serigne Cheikh Jëmu Fall ñu xam ne rek moom doom la rek ci ki nga xamante ni moo di rek Serigne Modou Moustapha Fall moom mi nga xamante ni rek doom la it ci ki nga xamante ni moo di rek Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall moom nag daal nay génn àdduna à l'âge de 80 quinze ans ba tax na rek moom sax ndiki euh, démb rek euh, ci guddi gi lañ ko rek euh, daal di mujjee boro boroomam ci ay booru rek une heure du matin kon nag ñu daal di jàpp ni moom moo xamante ne rek moo fi nekkoon xalifa général des Baye Fall daal day génn àdduna ndiki démb à l'âge de 95 ans ki nga xamante ni nag moom moo ko daal di wutu ki nga xamante ni jamono ji nag moom mooy ki nga xamante ni moo di xalifa général des Baye Fall di rek ki nga xamante ni moo di Serigne Amdi Modou Fall moom moomee nga xamante ni jamono ji nag moom moo ko rek euh, daal di wutu moom moomee sax ñu gën ko euh, xam fële nga xamante ne rek mooy euh, ca Jurbel nga xamante ne sax jamono ji foofee rek daal di woon nekk moom nga xamante ni moo di Serigne Modou Menda Fall nag ñu gën kaa xàmmee rek ci li nga xamante ni moo di ndog yi nga xamante ni da koy distribuer rek saa yu weeru koor jotee kon nag moom la ñu jàpp ni moom moo fi wutu ki nga xamante ni rek moo di Serigne Cheikh Jëmm Fall ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi lool nag te ànd ak ak wér ba tey euh, ci xibaar yi ñu daal di euh, wax ci leneen wax nag ci beneen accident boo xamante ni euh, daal nañ koy nemmeeku niki biig ci guddi ay booru 23h du matin ci axe Ndiouroup jàpp nag Ñongolor ca région bu Fatick moom nag ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni daan nañ koy am boobee accident nag daanaka léegi mu daal di causé nag moo di rek juróom wala fukki ak benn doomu aadama yoo xamante ni jot nañ see rek daal di ñàq seen bakkan jamono ji ñu wax ak yéen nag bi di rek ab benn camion ak benn bus boo xamante ni euh, transport euh, commun la ñuy daal di xamal ni sax ñi nga xamante ni ñoo jot a ñàkk seen bakkan ñenn nag ñu ngi doon dëkk foofu yi nga xamante ni sax mooy ca euh, booru Sédhiou ba tax na rek ñu daal di xamal ni sax ñeent ñi moom bokk na si kenn ko nga xamante ni rek ab militaire la daal di ñàkk bakkanam ca boobee accident mu nekk nag accident boo xamante ni ñi nga xamante ni nag ñoo si ñàkk seen bakkan bokk nañ si ñenn ñett ñoo xamante ni ñoom ngi woon rek ca boobee euh, camion ñuy daal di xamal sax camion boobee euh, benn rek euh, camion malien la ba tey euh, ci xibaar yi ñu daal di nag addu wax ci leneen wax nag ci li nga xamante ni euh, moo di rek lii di bas mi di euh, coronavirus ak ki nga xamante ni moo di ministre de la santé et de laction action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu daal di xamal di ki démb ni bu suba nag nga xamante ni rek mooy ci alxames bi dina rek daal di recevoir lu toll rek 2000 wala sax 227 200 doses vaccin Sinopharm yoo xamante ni nag li ko dina ko daal di recevoir fële nga xamante ni mooy ca aéroport international bu Blaise daanaka yemuñ ci loolu ndax kat bu sukkandikoo ba tey euh, ci journal bi di la Soleil nga xamante ni moo daal di joxe information boobee mu ngi daal di xam la ni dina jaar di recevoir at lu tolloog cent cinq mille six cent doses yoo xamante ni ay AstraZeneca la waaye te cent cinquante mille doses yoo xamante ni rek ay Johnson euh, Johnson la ba tax na rek moom dina daal di xam ne ni loolee nag nañ ko daal di recevoir daanaka si deuxième quinzaine au mois de euh, septembre bi ba tey euh, ci xibaar yi ñu daal di des euh, ci euh, li nga xamante ne sax moo di mbas moomee ak tolluwaayam fii si biir Sénégal gannaaw nag 3000 3032 tests yoo xamante ni daal di nañ koy amal nag lu tolloog 105 115 ñoom ñoo dam am doomu jàngoro boobee di coronavirus ca noonee nag 19 ñooy nekk ay cas contact suivi 95 nekk ay cas issus de la transmission communautaire am na nag lu tolloog 400 patients yoo xamante ni ñoom faj nañ leen ba ñu wér boo wara génn sax ca lalu hôpital yi 35 cas graves

nekk sous traitement ba tey rek euh, ci xibaar yi ñu daal di nag euh, addu wax ci euh, building administratif bi nga xamante ni moom moo doon laq daanaka le 26 août bi rek ñu daal di génn fële ca Dakar building administratif boobee nag gannaaw laq-laq boobee nga xamante ni nemmeekoo nañ ko foofee ca dixième étage ba daanaka nag depuis boobu ba tey dañ ko rek daal di tëcc ba tax na sax am na benn note bu nga xamante ni daal di nañ koy jàllale daal di xam na ni boobee tëj nag maanaam fermeture boobee doo moytu na daal di dambal tolloog rek 30 maanaam 30 jours maanaam rek benn weeru yàlla

lu tollook ay milliers de personnes dañ fay rek daal di xëy euh, bës bu yàlla sax kon nag mu mel ni euh, yooyu milliers de personnes nag doo moytul euh, nañ xool naka lañuy def rek pour daal di amal seen ay activité quoi mu mën a nekk ay télétravail wala sax neneen façon bu nga xamante ni dañ ko daal di rek amalee seen ay liggéey waaye nag li si am ba am mooy que ni boobee building daal lu tolloog weeru yàlla daal dañ koy rek daal di tëj pour rek daal di xoolaat nga xam amul rek ay yenn faay yu nga xamante ni daal nañ koy nemmeeku ca boobee bâtiment ci xibaar yi ba tey ñu daal di nag euh, addu wax ci wàllum euh, politique ak benn militante bu Pastef bu nga xamante ni moom dafa rek traîner en justice ñi xamante ni ñoo di ay policiers yi xamante ni dañ ko rek euh, jàppoon ko rek daal di malmené maanaam di ko daal di dóor bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nag bi nga xamante ni sax L'As Quotidien moo ko daal di joxe kookee nga xamante ni moo di rek Adja Ndaw nekk fële nga xamante ni mooy ca Kaolack nekk militante bu Pastef moom nag du ñu sukkandikoo ci moom li nga xamante ni moo di ñetti policiers dañ ko jàppoon ko nag di ko rek euh, daal di dóor ba daal di koy gaañ nag si bët loolee nag tax ba ki nga xamante ni moo di daam boobee sax daal di rek euh, yóbbu ñi nga rek moo di euh, policiers yooyu ca kanam yoon gannaaw nag li nga xamante ni moo di conférence de presse bi nga xamante ni moom la doon amal ndiki bi moom Adja Ndaw daal xam ne nag dafa amal ab citation directe ci ba daal di rek topp ñi nga xamante ni ñoo di policiers yooyu nga xamante ni dañ ko doon daal di malmené moom moomee bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey gannaaw nag dóor ko doon dóor am na benn bëtam boo xamante ni si lañ ko daal di dóoroon ba mu enflé moom nag ba tey muy daal di xam ne ni rek gannaaw boobe ba tey nag botam boobe dafa am problème pour rek daal di euh, mën a gis ci politique la ñuy desandi ba tey sax wax ci gannaaw nag militantu Pastef boobee nag dañuy wax rek ci ki nga xamante ni moo di rek chef de file bi mu di kii di Ousmane euh, Sonko moom moomay nga xamante ni moo di rek njiitub euh, Pastef moom nag gannaaw ba nga xamante ni euh, daat nay addu wax nag ci li nga xamante ni rek moo di cherté dund bi nga xamante ni ñoo ko rek daal di nemmeeku daanaka lu tolloog rek ñaari semaine fii si biir Sénégal moom nag gannaaw gi nag daat nay addu daal di wax ca boobee mbir moom nag Ousmane Sonko daal xam leen kenn waralu ko rek lu dul ki nga xamante ni moo di rek euh, kii di euh, Macky Sall ba tax na rek moom moomee sax Ousmane Sonko daal di xam ne ni moomee loolee nga xamante ni moo di euh, seerete dund boobee gannaaw ba nga xamante ni nag kii di Macky Sall génnee na lu tolloog rek 1000 milliards pour rek emploi des jeunes depuis booba tey nag kenn gisul loo xamante ni yooyee 1000 milliards naal daal dinay def benn effet ba tax na rek moom Ousmane Sonko daal di koy firndeel ndax kat daal nay xam na ni lu tax nekkoon nag yooyee problème d'emploi bu nekkoon rek daal nañ koy saafara xale yi duñ kon ne ba tey rek di daal di jël li nga xamante ne rek moo di yoonu Europe bi ko awale ci biir euh, géej gi moom Ousmane Sonko nag daal di xam ne ni kii di euh, président de la République Macky Sall moom sañul sax daal di génn pour rek daal di jàkkaarloog li nga xamante ni moo di euh, sénégalais yi ba tax na nag moom daal na si yokk ni li nga xamante ni nag moo di 60 milliards yi nga xamante ni kii di Ousmane kii di Macky Sall daal na koy génne pour rek daal di jënd ab avion bu nekkoon dugal na ko rek ci wàllum inondation yi daanaka Sénégal duñu am benn problème ba tey euh, ci xibaar yi nag ñu daal di wax ci wàllum tàggat yaram wax nag ci làmb ji ak activité yu nga xamante ni euh, dinañ ko rek euh, daal di tàmbalewaat le premier octobre bi rek ñu daal di dëgmal gannaaw nag ba nga xamante ni tëjoon nañ ko ndax nag li xamante ni rek moo di mbas mi ak yokkute ba nga xamante ni nemmeeku nañ ko fii si biir Sénégal ñi xamante ni nag ñoo di waa CNG à travers Birasène xamante ni moo di njiit ga nag moom daal nañ xam ne nag lii di làmb ji moom dinañ ko rek daal di ubbiwaat le premier octobre bi nga xamante ni rek moom ñu daal di dëgmal moom nag mu ngi daal di xam ne ni loolee ñu ko daal di jël gannaaw rek ab concertation boo xamante ni amal nañ ko ak autorités yoo xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi bokk na si ki nga xamante ni rek moo di ministre des sports di euh, Matar Ba ak ñenn euh, gouverneur sax ki ak ki nga xamante ni moo di euh, gouverneur bu Dakar ak ñenn si ay autorités yoo xamante ni ñu ngi daal di nekk fii si biir Sénégal noone nag lañ daal di jëlee ab décision daal di xam la ni dañ ko daal di ubbiwaat le premier octobre bi rek ñu daal di dëgmal waaye nag kii di Bira Sène yemul ca lool ndax kat nag daal nañ xam ne ni foofee ci stade buñ ko ubbee euh, képp ko nga xamante ne nag dina daal di bëgg a accéder foofee nga xamante ne mooy ci acte bi euh, accès li nga xamante ne mooy ca stade ba il faudra rek nga daal di am li nga xamante ne moo di euh, passe sanitaire maanaam nga daal di ñàqu ba pare pour rek mën a dugg ca boobee stade xibaar yi dañ koy nag euh, daal di euh, jeexale ak benn euh, couple bu nga xamante ni daal daal dañ leen teg loxo ndiki démb fële nga xamante ni mooy ca almadi mu nekk nag ab benn chirurgien bu nga xamante ni chirurgien esthétique la sax ak ki nga xamante ni moo rek jëkkëram ñoom ñooñu nag daal dañ leen teg loxo ndiki démb fële nga xamante ni mooy ca almadi gannaaw nag ba nga xamante ni ñoom ñooñu nag seen ay piqûre lañ yoroon rek di ko rek daal di piqûre naanaka jigéen yi nga xamante ni ñoom dañuy rek daal di yokk seeni ay parti corps ba tax na rek ñooñu gannaaw gi nag lañ leen daal di euh, teg loxo ñoom ñooñu sax ñuy daal di xamal ni ay nationalité euh, ivoirienne la ñoom nag seen daal di ay injection la ñu yoroon rek di daal euh, di piqûre pour rek daal di yokk seeni ay partie corps moom nag ñuy daal di xam ni ñoom nag ndiki démb lañ teg loxo kookee nag gannaaw ba nga xamante ni mu ngi doon amal ay activité am ki nga daal moo di rek jëkkëram moom moo ko doon dimbali ca boobee liggéey waaye nag ñoom ñaar ñëpp daal dañ leen teg loxo ndiki démb ci ngoon gannaaw ba nga xamante ni daal amoon na ni ubbi woon nañ ko pour di leen teg loxo gannaaw nag ba nga xamante ni amoon nañ ñoo xamante ni rek xamle woon nañ ni foofee nga xamante ni mooy ca foofee nga xamante ni fa la nekkoon ca almadi na rek ko nga xamante ni dafay moom doon na leen jot ay célébrité lan la yoo xamante ngi nekk fii si Sénégal kon nag li si am mooy que couple boobee jamono ji ñu ngi rek en garde à vue te ñi nga ne ñoo di waa sûreté urbaine ñu ngi daal di xamal ni lii di enquête bi dañ koy rek daal di euh, continuer pour daal di xamal pour daal di xool ndaxam rek euh, desul ñeneen ñoo xamante ni ñoo di amal yooyu genre liggéey fii si biir euh, Ndakaaru loolee sax mooy ndar képp xibaaru tey leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te di leen wax nag bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen mën am suñu vidéo au temps réel am